arbusiflo no komba ba no kai even tong kanchen ak sekandanan mo gaw di fife fife sekandanan mi moy ndanan ndaysan ci deux jours la jël combat bi dan nako kanchen dan nako 10 secondes la wala 10 secondes ah ndaysan kanchen dan na sekandanan arbi nee na jël amul de lu xew arbi si la na combat lu xew première action bi arbi nee na jël amul lu xew fekk ndaanaan ngañ seen ngañ solaat na ko da koy daanaatam déet wër na ko ndombo ay eh. day leer day leer day leer waaw na leer na nañu ndeysaan ngañ ngañ seen daan na ko daan ñaari jël ndeysaan dañ seen kan na sekk ndaanaan ma ne ko benn topp saan ñaari jël ndeysaan ndeysaan daan na woo ndeysaan daan na ko benn tàkkusaan ñaari jël ndeysaan ndeysaan daan na sekk ndaanaan ma ne ko benn tàkkusaan ñaari jël